ay ponk d'actualité incha allah suñu ay ponk yi tamit si nar a gën bokk lu daal di ñeel si Aïssatou Diop Fall moom itam euh, correct nek kuréel gi nga xamni ne itam mooy euh, réguler waluk euh, télé yek site yi fii Sénégal moo koy daal di reprocher daal di yëkëti dara si li nga xam ne moo ay cadeau si sitam

Euh, bien sûr bi nga xamni euh, le premier ministre moko ko daal amal Ousmane Sonko. Euh, na ni lu ko dalee ni waajal tabaski bi si 2024 nak gouvernement bi si da jël ay position yu am solo fexe itam d'une duñ am ben yoon li nga xamne ne que mooy ay jafe-jafe bokk na si si ñetti yi nga xamni itam jël nako euh, lu di euh, premièrement par rapport ak euh, assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal manam bép camion bi nga xamni itam da nga ñëw fi Sénégal pour daal di jaay li nga xamne que xar neen la fexel ba daal lay yombal lu daal di jëm ci taxi yeeg ak yenn yo xamni tam itam koy daal di tege ni si mel ben ba nak moy l'exonération des droits et taxes sur les moutons euh, de euh, tabaski banikon kon tamit daal daldi exonéré li nga xam ne euh, taxe si li nga xam ne moo xar amana ni askan wi daal di war a pour daldi wadjal senu seenu tabaski ñettel ba moy la présence wala kon l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de trois bergers euh, chargé de la surveillance des animaux transportés madame euh, camion bu nek nak euh, dina am ñet ñoo xamni ni itam ñoo daal di taxaw surveiller camion ma xam euh, mi ngi à destination mani ni kon Ousmane Sonko monsieur yooyu la daal di jël ni nga tey ci fa conseil interministériel mu daal di koy tijji ni ki tey donc nak lu ñu mel mu daal koy destiné madame Yassine Fall mu nek ministre de l'Intégration africaine et des affaires étrangères waaye itam mu daal koy aussi. Euh, général euh, Biram Diop mu ministre des forces armées euh, ba si général Jean Baptiste Tine mu ministre de l'intérieur et de la sécurité waaye it monsieur Cheikh Djiba aussi mu ministre des finances et du budget monsieur El Malik Ndiaye mu ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens jébbal aussi ki n'a xam modi que Serigne Gueye Diop mu ministre de l'industrie et du commerce Ousmane Sonko jébbal aussi Bata Khalbi ki nga xam modi que Moussa Fofona mu nekk ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales à quoi aménagement euh, des territoires jëbbal na aussi monsieur ibrahim si moom mu ministre de la santé et de l'action sociale daal di koy si ki n'a xam nekk moo di monsieur Mabouba Diagne mu ministre de l'agriculture de la souveraineté euh, alimentaire et euh, l'élevage donc nous Ousmane Sonko loolu la daal di yëkkati ni ki tey jii mu nekk trois décisions yi n'a xam ne itam ni si daal di jëmale daal di waaj tabaski à tout peu 2024 Serigne ban jàng nga di def par rapport ak ces décisions yi n'a xam Ousmane Sonko jël na waaw des décisions très importantes surtout bi nga njëkk a wax nga xam euh, aujourd'hui walum tabaski bi parce que tabaski bi je pense que c'est dans un mois wala un mois quelques jours mm. donc tabaski aussi bëss bu am solo la bu spécial la aussi ci Sénégalais parce que le Sénégal aujourd'hui est un pays à 95% de musulmans donc kon euh, tabaski bëss bu am solo la bu am dayo la et qui gis nañ ni pour la plupart aussi bari na ay at yu nga xamanteni euh xar yi non seulement lay lay doon na manquer waye lay lay aussi tamit doon na jéggi dayo doon na mm. cher ba mm. le sénégalais lambda pour mu am xar bu bu tane sax c'est tout un problème mm. kon c'est tout à fait normal le premier ministre Ousmane Sonko instruire au ministre au ministre en charge euh, véritablement que mbir yi euh, ñu tel ci jël ay ay ay prévention pour que euh, buñ ca tolloo xar yi mën a yemamaay ci ci sénégalais alors donc mi ngi noonu exactement ki nga xam que Modi Ousmane Sonko jël na nag li nga xam que Modi di mesures yi waaye itam jox nag lu daal di toll si juróom-ñett si ay ministre neex ñu daal ci war mëna mën xel bu baax ba may fatali gina bu mu daal tijjee ni ki li nga xam que Modi le 3 mai ni ki ji nak ci àjjuma ci fa nga xam ne itam ko euh ba tey jëm ñaaju tijjiwaat na ko fa tamit beneen muy daal di wàcc wàllu ko tabaski bi ak yenn ci ay mesures yi nga xam tam ñom nguur gi euh, jël nañ ko dañ si daal di ñëw lu mu gën a yaatoo euh, si biir li nga xam que Modi di jotaayu point actu bi donc nak mi ngi non circulaire bi mi ngi dadi di eh, wéy ni eh, fii ba si kanam di xoolaat mesure moo na daal di war a mën a wàcc fa nga xam ni eh, présidence bi alors ma ni kon ñoom moom moom ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye Serigne. Mhm. mën nañ jàpp ne ñi ngi dans l'anticipation parce que déjà mhm. anticipé nañ li nga xam que moo conseil interministériel yi bokk na si mbënd bi la gestion des inondations. waaye itam mhm. bokk na à la Mecque bi di aj bi. Euh, à part li nga xam ne que moo tabaski bi comment comprendre ce politique cette politique euh, de de d'anticipation. une bonne démarche Fallou. Hmm. parce que gouverner c'est prévoir mon hmm. et j'ai toujours dit que ni aujourd'hui nous avons un gouvernement euh, qui a l'initiative un gouvernement qui a la volonté de faire de bien faire également et que depuis un certain temps depuis que nous sommes au pouvoir nous ça prouve encore une fois leur volonté et leur vision par rapport par rapport par rapport aux affaires. Hmm parce que tay bu fekkee les mesures de prévention jël nañ ko par rapport ak ñeel li nga xamante moy tabaski bi ñeel li nga xamante aussi moy umra bi yoy je pense que c'est de bonnes choses gouverner c'est prévoir fàllu lu ñu xaar ba pandaw ga bu bés bi djégé euh, euh, si donc ñuy ñuy jéem a wut aw en tout cas il faut baliser le chemin aux musulmans pour que comme ni ma ko waxé légui chaque musulman euh, sénégalais euh, bénéficie bel et bien ben xar bu nga xamanteni dina mën nek à sa disponibilité. Mm. voilà ci ci ci njëg lu nga xamante dafa yom. en tout cas gouverner de de manière très ramassée gouverner c'est prévoir kon liñu def solo parce que ça s'inscrit véritablement dans la logique de de de de prévenir. Hmm. alors donc mi ngi euh, ñi ngi euh, dans la prévention ñi nga xamni daal di si nga xamne dit di parti euh, dañuy par rapport ak d'autres décisions par rapport à quoi bonne gouvernance gis neen ki nga Ousmane Sonko.

sans préalablement fonder euh, sans préalablement une bonne gouvernance nous avons une démocratie sans une bonne gouvernance parce que la bonne gouvernance c'est un élément fondamental hmm. dans un état, de droit Vous la transparence faut am hmm. maintenant transparence vous bu fay gàllankoor lepp lu nga xamante da fay jëm ci walum corruption wala walum global hmm. donc kon nak man pour man bo xolé depuis un certain moment ñom ñu ngi insister sur la bonne gouvernance sur la transparence parce que loolu tam lu ranké la won si réew mi parce que liko gëna findel a y a combien de rapports yu ñu publié nga gis ay scandale corruption dugg fi faux et usage de faux etc kon nga xamni la bonne gouvernance bi nga xamni nos autorités dañu ko yag théoriser. Hmm. musul nek une réalité. Hmm. te ñom xam nañ ko parce que ci biir système bi lañu ñu nekkoon ci biir système bi lañu ñu nekkoon mooy ñoom ñëpp ay inspecteur des impôts et domaines lañ xam nañ doon nañ intervenir ci yenn administration yi xam nañ ce qui se passe donc bëri na tey loo xamante ni moo gangréné aujourd'hui le développement de ce pays moo gangréné le développement de ce pays mais en réalité boo demee ba ci source bi da ngay xam ni c'est la mauvaise gouvernance kon donc boo xoolee depuis booba léegi Ousmane Sonko nekk ci ak Basirou, Basirou, pratiquement du def discours tuddul la bonne gouvernance bah, surtout ñi ngi alerté mais c'est tout à fait normal message bi ñu passé que ni ñu un rapport yi day allant dans sens que nous ne suñ fi jógee. ak beneen bi. nee nañ compte. ak euh, lettre bi mu envoyé les les agents de l'administration là la si rappelé la loi de 2012. éthique déontologie nous leen yéen yéen wara fexé ba protéger suñu ay ressources. comme nga xamni ni ba ba ni sax dinañ créer une loi bu nga xam protéger les lanceurs d'alerte comme kon nga xamni ni juk nañ pour faire lepp lu nga xamante da fay galancor la bonne gouvernance et je pense que lolu dynamique am c'est une démarche salutaire une dynamique bu nga tout Sénégalais de bonne foi aujourd'hui donc saluer mm. parce que nous ñoko décrit en réalité mm. Ousmane Sonko jaay ñuko jaay ko Sénégalais Sénégalais jënd ko kon ñom mënu ñu tay dama japp ni sen sen taxaway bu mm. xex ba corruption fi moy xex également bañu waccio ak état de droit man pour man c'est le plus important alors te ci logique bobu lañ nek alors c'est clair exactement c'est le plus important ma leen fàttali ba tey une seen émission dina xam ne mu di le point de l'actu bu tey bi alors donc dañuy daal di wéyal Serigne euh, à la dernière minute aussi ñi japp ni. Euh,